asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw soxna yi. soxna Mariama na nga def. na ngeen def nag. ñoo ngi fi alhamdulilah. naka tàngaay bi. ñoo ngi nii rek sant yàlla. jërëjëf waaw merci naka waa kër ga. ñu si jàmm alhamdulilah. ñëpp a si jàmm. sant yàlla. yegsil bismillah. ñëwal ñu seetaan télé. hay waaw non kii Sadio yow oh, uh, madame Laax. waaw ah yow madame Laax li nga def nii moom mooy lan. lu xew ma de maa ngi seetaan télé sax ñëwal ñu seetaan kay toog. yow ma boobu ba tey yow lay xaar ñu dem ko ñoom Khadija. laay ray ma ma dee. di la xaar nga nii raj toog nii di seetaan sa télé mel ni ku war a ànd ak ni fenn. gis nga de waay waay maa ngi jéggalu fàtte woon naa ko sax soxna Mariama. waaye jógal waajal sa bopp waay naaj ma toogaay toogaay amatul. jógal naaj ma xaar ma fay télé bi te ñëw. jógal ani Jeynaba sax Jeynaba waaw kay amul parfum bi xaaral soxna Mariama dafa tàng xaaral ñu parfum tuuti eh! balaa ñu génn. dam laa lu xew subhanallah. Ah. yow yëgoo woon xanaa lu yonent bi wax si jigéen buy parfum. di jigéen buy parfum daa am lu ci nekk. yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee jigéen buy génn këram. jigéenu jullit parfum romb ay góor grand place yeeg yëpp xet gi di leen di xeeñ mhm. dangaa mel ni kuy njaalo ba ngay demee ba ba ngay wuññeeku sa biir kër bàyyi li ngay wax soxna Mariama ay parfum kese nga njaaloo si ah yonent bi sa alayhi wa sallam moo ko wax te suñu diine moo ñu ko sant ñun jigéeni julliti moo ñu ko tere ah yow de boo moom waxee ci mbirum diine dama ci ànd parce que lépp lu ma xam sama diine ginnaaw yàlla yow la yaa ma siy jàppale ah ginnaaw nee nga buñ parfum kon nañ teg nii rek ah. ndax man xaw ma ci woon dara te ginnaaw yow tamit sama diine lépp lu ma si jot a xam ginnaaw yàlla yow la kon boog dama lay fekk si rek waaye nag bu ma gisee koo xam ne moo la sut aliwa incha allah ah dinaa ko laaj mu gën may leeral kon tee ñoo daw gaaw balaa ñuy lii daa mel ni jël nañ temps de waaw ñu dem ñu gaaw parce que yow moom sa àndandoo dafa métti trop man maa ngi topp télé bi rek toog topp télé bi rek c'est vendredi de. ñax mi ci biir. def ci mbaar def ci mbaar ak yooyu maire yeeg yooyu. fi mu nekk nii ñëpp ci biir. ñëpp ci biir la. Ah, ah, ah, la kay. macha mhm. ëpp na. loolu ak moom mooy de mooy loolu. <laughs> man de damaa féex. waaw kay ah soxna Mariam waaw daa mel ni oustaz eh, Omar mi ngi nii de. ah macha allah daa mel ni woote yàlla gën a gaaw gis nga ñu ngi doon wérante léegi far oustaz ñëw maaleykum salaam laa oustaz alhamdulilah sant yàlla bu baax alhamdulilah ñoo ngi si jàmm naka waa kër ga ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah sant yàlla alhamdulilah da ngeen doon doxantu dañ doon doxantu am fi ñu doon dem nii ah, man ak soxna Mariama ah, waaye da dafa am lu ñu doon wérante léegi ñun daal dañoo bëggoon génn léegi man ak soxna Mariama ma woo sama doom bi ne ko pour mu mu jox ma parfum bi ma laal parce que dafa mhm. tàng mhm. soxna Mariama nag am na lu ma si wax baaxee ma si nee na ma jigéeni jullit buy génn warul parfum mhm. ndax bu parfum génn mi ngi mel ne mi ngi njaaloo ma ne ko ah loolu moom ëpp nay wax di loolu ma suma koy xam li ma juddoo ba léegi dëgg la dëgg la ma nag bu ñu génnee bu mm-hmm. buñ gisee koo xam ne oustaz wala ku ñu ëpp aliwa mm-hmm. incha allah ñu laaj ko mm-hmm. fan ñu génn rek di dem yàlla wane la ñu ak yow dëgg la ma ne woon rek nañ ci profité ñu laaj la lan ci diine wax euh, loolu Mariama wax la sax dëgg la ab xadis la boo xam ni ñu ngi ko jële ci Abu Musa al Ashari yi Abu Musa al Ashari yi daf ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na nee na bu bu ci jigéen rek maanaam jigéen jum mën a doon ci ju jigéenub jullit boo xam ne laal na parfum nee na génn ngir góor ñi di xeeju ca xet ga nee jigéen jooju mu ngi ci njaalo noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe la nag buñ la ko waxee dina xaw a yéeme tuuti nga waaw loolu dina du ñu ne kat boo génn yow jigéen ji dañu lay dóor su fekkee célibataire ga mhm. wala ñu ne dañ lay rey su fekkee marié nga waaye nag xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam daf ni doomu aadama cëram yi benn bu ci nekk dafay njaalo mhm. lamiñ mhm. njaaloom mooy muy wax masalan nekk di wax ak jigéen masalan naan ko su ma la jàppee su ma la nii su ma yooyu njaaloo lañ koy atte baakaaram njaaloo la bu dee bët nga nekk di seetaan vidéo bi wala nataal yi wala jigéen romb la nga di ko xool mhm. xoolu banneex loolu dañuy bindal bët bi ba bàkkaarob njaaloo mhm. dégg nga ko mhm. su ko defee nag jigéen ji parfum boobu mu parfum wa génn nag day attirer attention doomu aadama yi surtout góor ñi ñu di ko xool su ko defee nag ñooñee dañu bindal bàkkaaru njaaloo kan moo ko sabab soxna si looloo tax yonente bi alayhi salaam ko yow it am da njaalo am loolu mooy bi ci njëkk te xam nga cër yooyu dañ leen laaj yowmal qiyaam yàlla mu ni al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bi ma kaanu yaksibuun loolu moo tax nag yonent bi dañu wattandiku loolu mel noonu ndax cëri bët yi mën na cee njaalo te sax man na attiré parfois man na neex neexee goo xam ni waa ji mën na wax ak yow wala mu topp la wala yéne mel loolu la yonent bi ci tari mooy bi ci njëkk ñaareel ba mm, ndey penda bi gën a yéeme sax Abu Hurayra te yàlla na ko yàlla gërëm daa mas a toog comme comme jàkk ji nii rek ci yoon wi comme ni ngeen ma fekkee ci yoon wi nii rek moom dafa toogoon ci yoon yi moom Abu Hurayrata mhm. ci yoonu jàkk ji daal mhm. benn jigéen ci jigéeni saxaaba yi jóge këram ñëw di julli si ci jàkk ji mhm. léegi ngelaw li ni mu bare noonu daal di ëpp bi ngelaw li di ëpp rek Abu Hurayrata am na parfum bu bu ko xeeñ Abu Hurayrata ne ko eh yow jaamu yàlla bu jigéen bi waaw ma ndax ci jàkk ja jëm ndaw si ne ko on koy jàkk ja laa jëm mu ne ko parfum bi ma xeeñ noonu du yaa laala Mm-hmm. ndaw si ne ko waaw Abu Hurayra ne ko dellul ca kër ga nga dem sangu ji ba set maanaam nga raxas parfum ba mu denc yow Abu Hurayra ne ko ndax kat man dégg naa yonent bi yàlla bi alayhi salaatu salaam mm-hmm. naan bépp jigéen joo xam ne laal na parfum génn jëm ca jàkka ja mm-hmm. su jullee borom bi du ko nangul ak jullee dégg nga ko même bu dul woon njaalo ga sax lee jar na jigéen jullit bàyyi parfum dégg ko ba ca des mooy xam nga parfum dafa bokk ci li gën a rëy ci jigéen di ko bégalee borom këram mm-hmm. Mm-hmm. dafa bokk ci taari jigéen yi gën a rëy mm-hmm. na boo xooloon jigéen ñi ñëpp wala boog ñi ci ëpp bu ñu tëdd nelaw li ñuy njëkk def mooy jël parfum parfum néeg bi parfum seenu yaram ba xeeñ kon loolu mi ngi bokk ci taar bi gën a rëy ci jigéen yàlla nag def ni wala yubdiina zinatahunna illa li buulatihinna yàlla ci alquran bu ne bul def rek loola def ko bàkkaar la defal ñàkk koo def bàkkaar ñi bu seen taar yi di ko wan keneen ku dul seen jëkkër mm-hmm. loo tax ñu ne jigéen yow booy génn bu laal parfum mm-hmm. génnal noonu rek dem mm-hmm. waaye su doon ne nag da ngay dem ci say mbokki jigéen tam wóor la ni sa kër ba fa nga jëm doo romb benn góor doo romb benn grand place góor ca jigéen ñi rek nga jëm ca nga yem. Mm-hmm. nee na amul problème mën nga ko laal. d'accord dégg ko de. dégg naa loolu loolu daal moom loolu la ci lislaam wax. dégg naa ah, loolu ah, ah, na jërëjëf jërëjëf kontaan nañu baax jërëjëf leeral leeral nga aussi bu baax. macha allah yal na yàlla fay amiin yaa rabbi ah kon boog. dégg nga ko soxna Mariama ngeen ngeen ngeen njaboot ga rek. incha allah dinañ ko dégg waaw kay dinañ